l'article 103 de la Constitution, Constitution du Sénégal. L'initiative de la révision constitutionnelle appartient concurremment au président de la République et aux députés. Mm-hmm. Le projet ou la proposition de révision de la Constitution est adopté par l'Assemblée nationale selon la procédure prévue à l'article 71 de la présente Constitution. Mm-hmm. La révision est définitive après avoir été approuvée par référendum. Mm-hmm. Toutefois, le projet ou proposition n'est pas présentée au référendum lorsque le président de la République décide de le soumettre à l'Assemblée nationale. Mmh. On dans ce Dans ce cas, le la proposition n'est approuvée que s'il réunit des trois cinquièmes des suffrages euh, exprimés. mooy dans le cas cadre euh, d'une d'une proposition de loi muy démarche bi ngeen am emprunté les articles 65 et 77 de la présente euh, de la présente constitution ne sont pas applicables aux lois constitutionnelles la forme républicaine de l'État mm. le mode d'élection mm. la durée et le nombre de mandats consécutifs du président de la République ne peuvent faire l'objet de révision l'alinéa 7 du présent article ne peut être l'objet de révision mm-hmm. léegi yéen li nga wax noonu ah, ma la moo tax ma ne la mm-hmm. y a deux situations temporel mm-hmm. et matérielle temporelle bi li nga xam ne moom mooy la la forme républicaine de de l'État mmh. les deux autres situations matérielles muy la durée du mandat et le nombre de mandats mmh. bi dafa ne mm-hmm. loolu mënul def l'objet de refe de de de, de révision buñ ko waree laalaat dañu waroon na def référendum mmh. et yéen assemblée nationale ngeen méconnaître les dispositions de l'article 103 dem proposer assemblée dem proposer la euh, nu tudd la la modification de l'article 31 qui porte qui amène des dérogations aux dispositions euh, de l'article et par ce biais-là ngeen rallonger le mandat du président et puis et euh, l'assemblée le constituant dafa war a légiférer de manière générale et constitutionnelle et c'est pour le cas pour toutes les lois ngeen sax yokk ci euh, la date du 15 décembre conseil constitutionnel loolu la leen wax ne mënul nekk. léegi may mun a dama bugg rek nga may ma parce que sa question bi gis nga ni ma guddee. non dina gudd kay parce dama lay dama dama lay dama lay. jox léegi xam nga bi ngay wax dama dama bëgg nga ma ma dégg ma waxtaan comme ça mu mhm. jariñ Sénégalais. Mhm. xam nga d'abord la durée du mandat ak le nombre de mandats article 27 constitution moo koy wax clause d'éternité yi ngay wax dëgg la ni lañ ko bindee. ci article 103 mais xam nga article 31. Mhm. mooy wax la dat des élections mhm. mais loi constitutionnelle ñaar la buy modifier ak réviser la constitution ñun modifier wuñu constitution réviser wuñu constitution le pouvoir constituant que nous que nous que permettre nañu ñu am une dérogation pas xam nga dama dégg ñuy wax modification de l'article 31 non c'est pas une modification c'est une dérogation à l'application de l'article 31 de la constitution maanaam dérogation mooy ndégandi pour ñu appliquer article 31 bu constitution gis nga bu fekkoon ne par exemple loi boobu loi bi ñu voté pour 15 décembre même na su ñu demoon ba jour élection le 15 décembre mu am président de la république boo xam ne fal nañ ko suñu xëyee may mun a cette dérogation là bi nga xamante ni moom lañ def dafay sauter ci constitution bi parce que bokk ci. mooy une dérogation ponctuelle et conjoncturelle dérogation et conjoncturelle. Mm-hmm. te loolu la pouvoir constituant am na prérogative def ko boobu mooy benn beneen bi mooy la dure du mandat. ak le nombre de mandats article 27 ak clause d'éternité yi nga def ça rest intact dans la constitution parce que kenn laalu ko ñun dañu def une dérogation à l'application de l'article 31 de la constitution xam nga démb Maître Doudou Ndoye sax wax nga te boobu maa ngi dégg aussi beneen constitutionnaliste mu wax ko tey ce matin sur benn télévision par rapport ak li nga xamante ni ni moom mooy la durée du mandat cinquant la loolu kenn werante wu ko ñaari mandat la war a def kenn werante wu ko clause d'éternité yi kenn werante wu ko mais bu fekkee ne de xam nga tey dama lay jox exemple décision bi nga xamante ni moom la conseil constitutionnel joxe ils ont dit que nañu indi li nga xamante ni dañu considéré ci considérant yi wér bi dañu wax ne impossibilité d'organiser les élections le cinq ba pare ñu ne autorité compétente yi nañu organiser des élections dans les meilleurs délais nu mu gën a gaawee comme ni ko maître Doudou waxe mais ñoom ci seen biir décision boobu est-ce que wax nañ ne élection yi nañ ko organiser telle date waxuñu ko muy benn beneen bi mooy may mun a ñoom ci biir décision bi comme dañu ne décret bi nga xamante ne moom la ñu attaqué woon ci cour suprême ñoom comme ñooy juge électoral bi dañu annulé waale décret bi parce que amul base légale parce que dafa lëkkaloo ak la nga xamante ni mooy loi bi ñu voté ñu annulé waale la nga xamante ne ni moom mooy décret bi mais bu ñu abrogé bu ñu annulé décret boobu abrogé donc jusqu'à présent ba fi may wax ak yow mooy mun a le 25 février moom la ñu convoqué le corps électoral. non non non non non non mooy ma déglu ma déglu ma mooy élection yi. waaw mooy mais décret mais décret bi convoqué woon. corps électoral booba ba ñu abrogé woon. le 25 février la convoqué woon le corps électoral. dafa am deux décrets. non non déglu ma le décret qui convoque le corps électoral ak le décret qui la date des élections da may déglu da nga may déglu da nga may déglu da nga may déglu xoolal le décret qui fixe le corps électoral ak le décret qui. fixe la date de l' boobu date élection bi fixé nañ ko déjà ci article 31 bi loolu moo indi dérogation à l' article 31 Maïmouna donc jusqu'à présent ce décret là est en vigueur et ce décret boobu est-ce que gis nga ñu def ko ci biir ah. Euh, euh, je je vais. muy benn non non non je vais reprendre Doudou boo boo boo abrogé. non boo boo annulé décret bi président abrogé la convocation du corps électoral looy laal ci élection. non <laughs> ci looy laal ci ci ci décret bi fixé date élection déggoo li ma dama ne. le président avait pris un décret bu convoqué le corps électoral mu jëlaat beneen décret abrogé ko décret boobu ko abrogé décret boobu lañu ñu waaw donc décret bële ça reste en vigueur. décret de de de de. convocation du corps électoral ak bi fixé waaw déglu ma ak bi fixé la date des élections mais dans les considérants on a dit que le l'élection ne peut plus se tenir le 25 février mais dañuy fàtte wax aussi te maître Doudou Ndoye wax na la ko fii dem que conseil constitutionnel dafa débouté les requérants ci li ñu ko waxoon ne na fixé beneen datu élection wàññi. li nga xamante ne nii les de campagne électorale. loolu waxuñu ci. donc ce qui veut dire que aujourd'hui non ce qui veut dire que aujourd'hui cette décision a créé beaucoup plus de problème que ni mu ko waroon réglé te damay fàttali ne may mun a la loi elle est créée pour servir les peuples et non le contraire je rappelle parce que souvent dañ koy citer parce que dégg naa ñu bari dañ koy citer en France dañuy wax ne démocratie la 2014 yàggul dañu ñëw war a dem ay élections locales am dëkk yoo xamante ne ni amuñu woon carte électeur mais on est sorti de la base légale c'est-à-dire des lois et règlements pour am un consensus mooy li ñuy woowee jalo rek waxtaan pour que les populations yi nga xamante ni mooy dëkk yi nga xam ne moins de 1000 habitants habitants ñu voté sans carte électeur xam nga loolu lan moo ko indi. mooy consensus moo ko indi donc aujourd'hui su fekkee ne par exemple. considérant yi nga xamante ni moom la ñu gis ci décision conseil constitutionnel wax na ne nañu organiser élection yi dans les meilleurs de ala kulli alin amul dara loo xamante ni mën nañ ko def te indiwuñu waxtaan boo xamante ni ça va mais, faire mais, de sorte mais, que les acteurs non, non non non non ça va faire de sorte que les acteurs mën a dem autour de l'essentiel autour du président de la République parce que moom kese jamono ji moom moo mën avec les acteurs confondus waxtaan pour ñu am. liberté ba pare dans la décision aussi ils ont parlé de l'élection présidentielle du scrutin présidentiel de l'élection présidentielle may mun a jàng nga tubaab le scrutin mooy jour bi ñuy wote l'élection présidentielle c'est tout un processus qu'est-ce que le Conseil constitutionnel a di par rapport à cela